alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah abonné leen ci seen chen malben bu leen fàtte bës cloche bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi maa ngi tudd Ismaïla Sy di bokk ci staff bi nga xam ne mooy jàppale Mawlaay Cheikh Mahi Aliou Cissé ci liggéey yi muy def fii. tey lan moo waraloon euh, jëf ji. waaw gannaaw bu ñu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci sayduna muhammad salallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp di leen gërëm di leen sant yéen ñi nga xam ne vous êtes nos premiers partenaires ci liggéey bi nga xam ne moom la Cheikh Mahi def comme sacerdoce bon xam naa ne da ngeen koy laaj nii rek parce que peut-être pour informer ngeen ñi la waaye yéen ñëpp ci liggéey bi ngeen bokk xam ngeen ce qui se passe moo Cheikh Mahi moo nekk nit koo xam ne il s'est fait commission dans la vie moom sacraliser relation jullit ak moromam nit ak moromam dans globalement c'est-à-dire que waxtu wu nekk rek mu ngi xalaat keneen ki bokkul ak moom ci lan la ne lan la tële lan la mën lan la aajowoo def ko muy itim depuis bi ñu ko xamee ak léegi ci yëngatu yooyu muy def nag dafa am ay jaamu yàlla yoo xam ne ci bitim réew dañ ko topp di ko gëstu ba gis ne mi ngi def liggéey bu baax ci njaboot gi boo xam ne ñoom ñu ngi koy def ci yeneen réew maintenant ils ont vu que comme am nañ fii koo xam ne ñu nag moom ñoo bokk philosophie nañ dem jege kooku jàppale ko ci liggéey bi muy liggéey liggéey bi Cheikh Mahi di liggéey nag ñëpp xam nañ ko mooy dimbale nit ñi ngir yàlla ak yonent bi dimbale jaamu yàlla yëpp. amul catholique amul jullit amul kenn da nekk nit rek bu fekkee ne yàlla def na nga jege ko ndimbalam dana feeñ ci yow moom la nekkee saa su ne douze sur douze mois tous les jours guddee ak bëccëg jumaa ji buntu kër gi mbedd mi foo ko fekk loolu mooy itteem mu am nag benn association boo xam ne ñuy tudd Muslim Aid nekk euh, Amérique jokkalanteeg moom ñëwoon fi nag xamalanteeg moom wax ko li nga xam ne moom la ittewoo ci ni muy jàppalee jàmm yàlla ils ont vu ñoom ñoo gis seen bopp nag dafa bari lu muy jënd ceeb ak diwlin ak denrées de première nécessité yi di ko jox jàmm yàlla yi bokkul ak xaalis en espèce c'est des ONG qui ne travaillent pas avec de l'argent en espèce donc ils ont préféré jënd denrée te donc am valeur bu ñu ko jox moom itam mu dolli ci alal ñu dem jënd li ngeen gis fii tey bon chiffres yeeg yooyu moom xam naa il je vais lui réserver la primeur moom bu jël parce que di ko jël si kanam moom wax leen loolu de toute façon gis ngeen li fi nekk suba ba tey depuis huit heures on est là di ko distribuer dañu amoon nag ay cible comme d'habitude ay cible moom dafa am ay cible parce que actuellement dans tout Kaolack on a une banque de données pour les handicapés moteurs visuels ak ak <laughs> waaw ñu ngi am dafay liggéey ak ñi nga xam ne way laago yi laago ci làmmiñ laago ci gët laago ci ay cër loolu moom dañu am banque de données boo xam ne depuis presque cinq ans ñun am nañ ko suñu banque de données yoo xam ne dañ leen ciblé ba pare tous les vendredis ils sont là ñu jëflanteeg ñoom ak yeneen xew yi nga xam ne dafay am moo xam korite la gàmmu tabaski ak lu mën a xew ñooñu moom suñu cible lañ chaque fois dañuy jëflanteeg ñoom au delà de ñooñu sëriñ daare yi sëriñ daara yi parce que gis nañ daara Sénégal quand dafa laaj jàppale dafa laaj jàppale ci internat yi ndax li wéy jur yi di joxe ñaari seen doom yi nekk ci internat <coughs> taxu ko demee noonu bëgg nañ lu ko raw waaye réew moo demee noonu sëriñ daara yi souvent aussi ils sont mal assistés peut-être que culture la boo xam ne yàllaa ngi dimbale nit ñi quand même ñu commencé di am xel pour jàppale sëriñ daara yi donc bi ñu paree ci handicapé yooyu les trois formes d' handicapé mu ngi léegi nañ ciblé daara yi c'est-à-dire sëriñ daara bi ak internat yi moom bi ñu defee joxee ñooñu ba pare ñu gis ne ki dëkkandoo yi ñu nekkal nga xam ne bés bu ne dañ ñuy gis ñu ngi jàkkaarloog action yi ñuy def am na suñu nga xam ne bon mérité ni soxla nañ loolu mais peut-être que nekkuñ ci benn genre standing boo xam ne mën nañ ñëw taxaw laaj ou bien des trucs donc ñooñu dañ leen recenser après dem oo leen ñu ñëw ñoom tam ñu jox leen loolu. ñaata lay toll bon xaalis bi moom xam naa ak yooyu damay bàyyi sëñ bi reste premier de toute façon am na ceeb bu bari am na suukar non am na ceeb am na diwlin am na meew am na macaroni am na tamaate waaw je pense que ceeb bi moom am naa ko en tête ça fait 500 sacs de 100 kilos. mais yeneen yi ki des vraiment j'ai pas les chiffres en tête je vais réserver la primeur au chef. waaw waaw yu demee noonu yu demee noonu xam nga chiffre bi exactement moom comme yoruma ko fii mënuma ci mënuma ko confirmer daal mais aux environs xam naa war na ko toll noonu mais loolu moo xam naa sëriñ bi dina ko xam dina ci mën a dina ci mën a dina ci mën alhamdulilah alhamdulilah. abonné leen ci seen chen malben bu leen fàtte bës bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi.